feebar bi moom may boo ñu jàpp ni feebar la boo xam ni euh, li ñuy wax non immunisante maanaam amul vaccin te xam nga jàkka yi bu ñu tëjee kenn du wax ni euh, année blanche église également bu ñu tëjee kenn du wax ni année blanche euh, mais bu fekkente ni école de dafa tëj dañuy wax année blanche te année blanche li muy tekki mooy xale yépp dañuy doublé mu li tek également moy 526 milliards wo xamni euh dañu ko perte ci ci at moy budget éducation nationale donc amul du du élève du jàngalekat euh, du parent d'élève boo xam bëgg nga euh, année blanche parce que ñun ñi dund nañ ko muy année blanche muy année invalide xam nañu li muy yàq ci suñu culture scolaire euh, parce que c'est vrai tamit boo toogee ngay damay xaar ba mu jeex waaw boo fi defee fukki at la waaw parce que ñun ñii ba ñu juddoogul ba léegi ba euh, paludisme mi ngi fi ba ñu juddoo euh, siburu mi ngi mi ngi mi ngi fi te li muy rey ndax siburu daanaka trois cent trois secondes yu nekk mu rey kenn te booba léegi ñu ngi dund ak moom dañoo génn suñuy moustiquaire wut suñuy garab euh, dugg ci bañ yooyu màttuñu bu ñuy ma yooyu màttuñu bu ñu am siburu donc école yi bu nawet bu ñëwee da ngay gis day am ay yoo day am ay kii dañuy jël si ay kii rek dañ jël suñu matuwaay pour que yooyu bañ a maat pour que ñu bañ a feebar de la même façon kon feebar boo xam ne kañ xamoo ni kañ lay jeex nga bëgg a tëj say école continuellement loolu nekk loo xam mën na ne président li mu def def na ko parce que 16 mars lañ ko tëjoon waroon reprendre 6 avril mu dàq ko ba 4 mai 4 mai seegul mu dàqaat ko parce que day xool li nga xamante ni bii feebar bi noonu lay euh, évoluer ci ci ci ci dëkk bi donc ba tax na mu jiital euh, donc wér yaramu xale yi sécurité xale yi ak jàngalekat yi day toll moment boo xam ne da faw ñu décision bu ñu bañee année blanche donc euh, léegi nag mbir mi nekkul loo xam dafa simple euh, covid 19 dafa nekk dëkkandoo boo xamante ne bii ah dafa dafa dafa doy waar boo nekkee dëkkandoo bu doy waar nag yow yaay xam changé ses euh, comportements, comportement ba donc de l'éducation nationale euh, comité de de de de reprise le comité de reprise, euh, ministère de l'intérieur est la il y autorisation pour moi déplacer Le ministère transport ci la xale yi ak jàngalekat yi foog ñu déplacé leen ministère collectivité territoriale ci la bokk parce que euh, éducation ñun ak euh, maire yi ak euh, conseil départementaux yi ñoo ko ñoo ko seet ak bépp ministère boo xam hygiène publique également ndax école yi foog ñu ñu ñu ñu bale ko désinfecté ko ak bépp personne ressource wala bépp jàngalekat yeeg tout euh, ce qui est acte euh, parents d'élèves société civile nous avons ci Nous faire. ñi ngi euh, pour que le 2 avant le 2 nous nettoyions l'école, nous ba mu Les désinfecté ko aussi équipé ko aussi parce que sous les yi ak jàngalekat yi ñëwee dañoo am ay thermoflash nous avons ne bii ku température

obligatoire Nous mooy disposition yoo xam ne daañu ko jël pour que le deux xale yi mën a dellu ci école d' classe d' yi ensuite euh, les classes intermédiaires euh, daañu ñëw euh, plus tard. matériels yi moo ci ci jël CRFP yi déjà yónnee nañ ñu li ñuy wax seen plan de reprise ndax élèves maîtres yi dañoo bëgg le premier octobre ñu dellu ñu affecté leen donc pour loolu aussi il faut ñu reprendre sinon dañu ay classe

danaka ay 100 élèves maintenant ma fay nek à part dakar ak kees donc loolu nekk mën a lu war a mën